président Macky Sall et que tey jii département bi yëpp ñoo ko lalal tapis rouge vraiment mu nar a def une démonstration de force tey jii responsable yëpp ñëw na ci département bi maa ngi day jàkkaarloog les officiels képp kuy responsable local yaa nga fa toog mais à notre grande surprise dafa am benn responsable boo xam ne c'est un habitué des faits jëkkoon nañ ko jox suñu doomu tànk à des moments pareils. quitter le navire dem ànd ak ñeneen ci ay sources ci biir Saloum mu ànd ak Pape Diop ci yoo xamante ne si Sénégal yëpp teg nañ seen bët waa Touba teg nañ seen bët ma a mooy Basirou Sy boobu ba léegi président Macky Sall koo xam-xam ne nit ku baax la day yaatal mais ñu ñëw ba jub. élection présidentielle 2019 di waajal suñu campagne mu jekk-jekk bàyyi coalition bi te xamuñu lu tax ñu gis ko muy ànd ak Idrissa Seck te loolu doon lu ñu jaaxal mais lu ñu jaaxal ci moom ndax xam nañ ko nit la koo xam ne ci santaan lay dox c'est un maître chanteur léegi nag li ñuy wax président de la république en ma qualité de de mission du président de la République nekk tamit plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Touba ñu wax président ne jël ay responsabilités suñu poste bi nga xam ne ko yor te di ko xeexee ci kuje politique yi na ko président nangu ndax soxla nañ ko ñun ay jeunes ñu ngi fi yoo xam ne dañ leen laisser toujours en rade dañ leen a bàyyi ci ginnaaw instance de décision yi bokkuñu ci tey nag c'est le moment ou jël responsabilité yi nga xam ne jox nañ ko Basirou si nangu ko jox ñu ko ñu liggéeyal ci président ndax ñun président bi ñu sos parti bi ba léegi ngi ànd moom di liggéey di ànd ak moom continuer di liggéey di nangu benn Basirou si boo xamante ne si moment bii rek lay xaar pour dem ci gënal langue gi di def ay chantage pour ñu jox ko ay xaalis poste bi nag président moo ko moom poste électif la dañ ko ko jox fii au niveau du département de Mbacké plus particulièrement dans la commune de Touba kon ñu wax président de la république mu jël ay responsabilités poste boobu yor mu nangu ko jox ko kuy président ñun nag ci dàq ndaw ñi parce ndaw ñi gëm naa ne tey président lu mu am ci département bi ndaw ñi ñoo ci jiitu kon c'est le moment ou jamais ñu responsabiliser ndaw ñi jox leen poste bi ñu liggéeyal ci président de la république ndax conseil économique et social xam nañ mën nañ comprendre biñ koy changer. ci élection lañ nekk am na loo xam ne président Macky Sall du ko def waaye nag ñi nga xam ne dañuy war ay traître lañ dañ leen a war a nangu li nga xam ne dañ ko yor jox ko ñi nga xam ne dañu fidèle ci président Macky Sall.